njiitu Jamra Jamra nag ñoom boo leen gisee seen taxawaay maanaam tey lépp lu nga xamante ni dafa euh, sa euh, dafa nekk contraire ak ay valeur wala boog lépp lu nga xam ne dafa soxal diine ji ñoom dañ ciy taxaw di ci xeex bu baax a baax Imaam nan nga gisee déjà sphère bi maanaam atmosphère politique gu Sénégal nan nga ko gisee ba pare. Ah, xanaa xel mu tey rek. Hmm. ndax tension bi toll na foo xam ne. kenn ñaanu ko yàlla waaye moindre ferñeent ferñeent pour xale yi déggul wolof mooy étincelle musiba am ndax li ko tax a gën a tey xel mooy tëkkunte bi mm. waaw ku ci nekk yaa ngi toog jàpp ne maa nekk ci dëgg mm-hmm. yemoo ca waaye ngay tëkku ko mm. alors bu ko defee nag euh, ñoom foog ñu bàyyi xel ne moomuñu réew mi mm. dafa am ñu ko bokkal te ñun baadoole yi ñu feneen fu dul Sénégal ndax ñoom alakul yàlla bu Sénégal tàkkee ku si nekk si ñoom xëy na am na moyen mu rawale njabootam dugal ci avion yóbbu Canada ak Espagne ak États-Unis mhm. waaye eh, ñun sénégalais lam am na ñoo xam ne paasu Gambie bi sax amuñu. dëgg la kon nag foog ñu wax. Mhm. voilà moo tax eh, ñu ngi amoon yéene. Mhm. fan yi eh, le collectif des religieux pour la préservation de la paix civile. te ñu sosoon ko ci événement mars 2021 yi mhm. te suñu doyen Abbé Jacques Seck jiitu ko ànd ci ak imam Youssouf Sarr ak imam Cheikh Tidiane Diop ak yeneen imam mhm. waaw fas yéene nañ daal solaat suñu dal mhm. waslu àq est-ce que dinañ ñu dégg wala du ñu dégg su boobaa ñoo xam ne def nañ suñu devoir parce que dans tous les cas moo gën loolu tubaab di wax le rôle hypocrite du médecin après la mort loolu la ñuy moytu incha allah médecin après la more boobu lay ñëw imaam est-ce que nekkul ni moo moo nekk di xew nii euh, man nag tiru imaam bi dama ko tàmm bien que tere nga ma ko waaye dama alors est-ce que du loolu moo nekk di xew nii ndax nag boo dee xool ñun fu ñuy dégg Jamra tout le temps c'est ci mbirum mërs wàllum góor jigéen wàllum jigéen yu jaay seen bopp lesbienne et cetera et cetera maanaam ñi nga xam ñooy LGBT yi ak euh, lépp lu nga xamante ne xëy na dem na si luy yàq société waaye euh, saaga yi xastante yi waxante lu ñaaw yi ñenn ñu ñuy tëj sans raison yenn saay yenn saay mu doon loo xamante ni day am ci ci ci ci internet bi ba waajur yi ci bari tiit duñ ciy faral di dégg di dégg di dégg di dégg Jamra. waaw xam nga jumtuwaay yu yi. Hmm. particulièrement réseaux sociaux yi du benn yoon du ñaari yoon dégg ngeen Jamra di ci artu léeg-léeg sax ñu artu ka ñu artu lieu mu jàppe ne njariñam lañ ci séntu ak njariñu intérêt général bi mu wëlbatiku ñàkkee ñu ci teggin soon nga fi mbirum ndaw soosu ñu naan rangu dañ doon artu rek naan ko ay eh waay soxna si lii lii na nga xel ne penc bu am une dimension mondiale. waaye da cee gën a ràccaak waaye gis nga li ma ci fekk. Mhm. te dama ko doon yedd rek. mu mujjee dem defal ma benn vidéo. Mhm. naan Pa Jamra bii. Mhm. amul lu mu wax du jóg sama kër. ma di ko suppu kànjal. di ko defal njaru soow sos yu garaaw ah, ñu daal di def li ñu yoon may rek. dal di déposer plainte commissaire Bara Sankhare mhm. pour diffamation diffamation waaye ba mu gisee ne yëf yu ëpp na ci la mujjee defaat vidéo mm-hmm. daal di jéggalu mm-hmm. loolu euh, li nga wax la c'est-à-dire ci euh, jumtuwaay yu xarala yi réseaux sociaux yi euh, ñu di ko jariñoo mm-hmm. pour wasaare mbon kon Jamra exemple bu ma la jox ngi noonu mësul jog ci ci di ko xeex bi ci gën a récent mooy bu daaw bi rek. ay jeunes dix huit vingt vingt cinq ans maximum jóg rek ñun ñëpp ñoo jombi noo ubbi réseaux sociaux yi rek pour la première fois dans l'histoire des dérives audiovisuelles. ñu gis benn bande annonce d'une série pornographique. jigéen ci jàpp futti ko ni ko ndeyam ju avec des scènes au lit ñoo ko xeex. procureur jox ñu dëgg ñu retirer bande annonce bi. parce que déjà yàlla def sutur parce que loo xam ne yow bande annonce rek la. Mhm. choqué ñëpp. Mhm. kon la muy annoncé bu jàlloon nu muy mel. alors ñu daal di ko supprimer. Mhm. xale yi ñu teg leen daan 17 jours de prison. et deux ans de prison ferme euh, euh, avec sursis. pour le producteur et les réalisateurs. et six mois avec sursis pour les acteurs et les actrices. yooyu ci xeex yu bon yi rek la. waaye nag bu yemoon foofu ñu mën a wax. mais léegi ñi nga xam ne ils étaient censés donner le bon way politique yi ñoom ñoo dugg ci ñaawteef yooyu amoon na fi temps il y a deux semaines loolu ñu tuddee la guerre des audios ci nekk loo ma soon a dencal sa moroom ndax xëy na jamono ba ngeen di weccoo kàddu ci whatsapp ak yooyu da ngeen ndekete yow yi secret yi mu la doon wax ay jaanu biiram mu di la ko wax yépp yaa ngi ko denc yàlla dogal féewaloo am seen biir nga xëy rek wasaare ko ci réseaux sociaux yi loolu musiba la moo tax dafa sama benn jarbaat bu ma ne waa tonton yow mi nga xam ne tout le temps yaa ngi ci réseaux sociaux yi nit ñaa ngi lay interpeller ci whatsapp mm-hmm. Mm-hmm. Ah, doo bàyyi xel affaire bi parce que mm-hmm. affaire audio moo xew léegi te da nga koy yónni audio rek mu am bés neexoowu leen rek mu génne ko ne ko fàng ci biti waaw loolu loolu loo ci xam ma ne ko man bu may wax téléphone wala bu may audio na may waxee ci télé yi. Mhm. noonu laay waxee ci téléphone ak <laughs> audio. Mhm. kon nag moi j'ai rien à craindre. Mhm. xëy na loolu ñi am des choses à craindre mooy ñi nga xam ne ils ont des choses à cacher. à cacher se reprocher. man nag ni may waxee fii ci sa micro noonu laay waxe ci téléphone noonu lay waxee fa. mooy bañ a tooñ. bañ a xaw yi sutura jàmbur. te jéem a tënk sa kaddu. ci xaala laahu xaala rasulullah. mu du mën ñàkk nag mu am ñu mu neex ak ñu mu neexul. waaye euh, ñun ci loolu lañu ñu fas yéene tënk. Mhm. kon nag euh, pour euh, biral sa interpellation pertinente bi. Mhm. je crois que ñu dul rek interpeller classe politique bi. parce que ñoom jeunesse bi dañu leen di faral di jàppee comme i référence. Mhm. waaw bu dee ñoom seen bopp ñooy dem ci réseaux sociaux yi di saagante. xastante xawinte sutura. alors la société sénégalaise est en danger. yéeme na parce que bu ñu fàtte ne te yàlla nañ si yàlla musal euh, musiba ba amoon en 92 94. Mhm. Rwanda. Mhm. Euh, ci jumtuwaay yu xarale yi la mhm. déparé. di la rajo Mille Collines. benn journaliste rek bu bokk ci benn waaso parce que foofu diggante Hutu ak Tutsi la. yëkkati fi kaddu yu yéeme. yéen Hutu yi yéen ñàkk fayda vous l'écrasante majorité de la population. Uh-huh. na di sàggane ba ñii nga xam ne ils sont minoritaires. Mm. poste yu baax yëpp ñoo ko yor ñoom ñoo nekk ci commissariat yi. Mm-hmm. préfecture yi les professeurs d'université. Mm-hmm. les cadres des entreprises yéen ngeen di nag ay planton kii ay balekatu mbedd. Mm-hmm. jóg leen jot na seen suufu maam la c'est tout si c'est des cafards c'est le mot qu'il a utilisé qui ne méritent que d'être écrasés. Mare d'Italie. population yi surtout ñi ci gàtt xel daal di ko jël au mot moo tax da ngay gis benn koñ moo mhm. xam ne Tutsi Hutu Tutsi Hutu yàgg dëkk en bon vaginal depuis mhm. vingt cinq ans trente ans mhm. keroog ba safaan wa dikkee gis bàyyi bu dem marché jënd ay machette ay semmiñ ay jaasi séddale ko ay doomam acca ka ca bopp koñ ba ndekete ñun suñu torox tàngee yëpp euh, outils yi ñoo ñu ko teg acca keroog la gis lu ma solom Afrique neuf cent mille morts mu di guerre civile boo xam ne amul arme à feu kalachnikov jaasi arme blanche ay rey yu ñaaw. loolu ci benn baat la déparé. mooy rajo mille collines moo fa yëkkati yooyu kaddu. kon nag jàmm balaa ngaa xam valeur yi valeur am nga ñàkk ko. kon nag comme que yàlla baaxe nañu euh, paix civile ak stabilité sociale. comme politique société civile. Mm. ak sénégalais lambda. Mm-hmm. na si ku nekk. mooy. Mhm. ñu téye ko si fukki loxo ñu sàmm